position bi au niveau nationale ñëpp ci lañ tënku d'ailleurs leaders nationaux yi ñëw nañu fii ba Thiès di jàppale euh, seeni euh, leaders yi ñu investir loolu kenn mësu ko gis ci élection locale ñu jàkkaarloo aussi ak Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ñoom ñooy euh, coalition pouvoir bi ñu yor moyens yëpp dajale yëpp moyens def influence bu ne pour fexe ba neutraliser ñu waaye Abdoulaye Dieye taxawal la coalition citoyenne And Siggil Thiès ànd ak ay doomu Thiès ànd ak ay gor ñu taxaw laaj daagan askan bi waaye Thiès won leen jox leen bopp ndax Abdoulaye Dieye ak la coalition citoyenne And Siggil Thiès ñoo gagné largement la commune de Thiès Est loolu aussi ñu ciy félicité président Abdoulaye Dieye ak góor yi mu àndaloon yépp waaye boo jëlee résultat Thiès Est yi am nañu fanweer ak juróom ak lu teg fanweer juróom benn ak lu teg ci ci pourcentage ñaareelu place bi yeewi askan bi ñoo ko jël ci Thiès Est ndax ñoom am nañu daanaka euh, ci téeméer bu ne fanweer ci pourcentage ñetteelu place bi Benno Bokk Yaakaar moo ko jël ndax ñaar fukk ak juróom lañu am ci pourcentage waaye dañoo seetlu ne ñun gañe nañu Thiès Est waaye ville de Thiès bi ñun yaakaar nañ ne suñu candidat bu ñu dajalee PV yi jóge ouest ak nord boole ko yi est yi moom dinañ wax am na am na ballottage favorable maanaam am na euh, faveur boo xam ne xëy na dina ko ci am ba mën a nekk le maire de la ville de Thiès ndax Abdoulaye Dieye aussi moo doon bi ci commune euh, de la ville de Thiès. beneen bi mooy euh, seetlu nañu ne ci vote bi am na ay mbir yu ci jaarul yoon d'abord ci tàmbali gi ndax bi ñuy tàmbali 8 heures la ñu waroon tàmbali ba 18 heures waaye gis nañ yenn bureau yi 9 heures na te tàmbali gis nañu aussi ne euh, bu ñu waree tëj vote yi yokk nañu vote bi te yoon dafa wax ne bu ñu yokk vote bi autorité administrative bi maanaam sous préfet waroon na def arrêté yónnee ko ñu taf ko ci bureau bi kenn gisul fenn arrêté fu ñu ko tafee ci bureau bi kenn notifié wuñu arrêté te loolu aussi lu doy waar la beneen bi it dañ ne da dem te mbañ gàcce bi ndax dañoo bëgg ni électeur buy bote ñu xam ne li muy voté mu am kumpa waaye ersan juróomi nit wala ñeenti nit dañ doon nekk ci ci mbañ gàcce bi nekkandoo fa loolu dafay wax ne secret de vote bi amatu fa loolu dafay maralu maanaam dañoo dañoo buure urn yi dañoo sol kees yi donc loolu lu mbokk ci lu ñuy war a ñaawlu waaye sunu mandataires yi ak sunu ñeen bu bu bu ci buñ ci tolloo ñoom li leen ci war dinañ ko def li tax ñu koy def nag mooy jàpp nañ ne sunu candidat war naa am lu ëpp 60 pour cent ci pourcentage bu ñu bu ñu réglé cas yooyu mais du terewul gagné na ba pare waaye dañoo bëgg pourcentage bi mu am bi ko Thiès jox ñu delloo ko ndax waa Thiès waruñu détourner seen i vote Benno Bokk ci nag ni ñu koy wax waa mburoog soow ak waa réew mi ñoom Yankhoba Diattara dégg nañ leen ñuy joxe ay résultat te loolu nag dañoo bëgg opinion bi xam ne Yankhoba Diattara ak idris Seck waa Thiès ñoo leen bàyyi teg leen fële ndax ñaawteef yi ñaawteef yi bi Yankhoba jatara def Idrissa Seck bàyyi ko ci moo tax tey ñu sanctionné Idriss Seck sanctionné waale Yankhoba jatara kon leader bu bees bi Thiès ki ñu tànn teg ko seen kanam mooy Abdoulaye Dieye ndax mooy seen doom te ndaw la te politique moom dañu naan ñenn ñi dem nañu retraite anticipée comme ni ko madame le maire Mbambey doon waxee léegi nag Abdoulaye Dieye mooy le nouveau leader recomposition politique bi moom la ak ñi muy àndal ci coalition citoyenne bi ak ñu mel na ñoom kon te nag ñoo ñooñu di wër di joxe ay résultats dañuy caaxaan dañuy indi problème ñuy wax état bi nañu vigilant ci loolu ñun jàmm lañu bëgg xuloowuñu xeexuñu waaye ñàkkuñu fayda ba opinion yi jox ñu liñ ñuy jox électeurs yi fal ñu fal Ablaye Dieye fay ko coonoom bi mu dajoon ak lu baax lim na defar waa Thiès ñu delloo ko njukkal ay nit di ko rocci loolu duñu ko nangu ku ñu xam-xam ne duñu nangu lool donc loolu nag vraiment bëgg nañu mu leer ci bopp ñëpp ñuy def nag ci élection bi benn mention spéciale ndax dafa am centre de boo xam ne fa la président Abdoulaye Dièye doon voté muy centre Iba Katiba Rada Maré moo fa am ñooñu ñu leen di jaajëfal di wax ne waa Thiès nañu jël exemple ci centre Iba Katiba bu ëllëgatee yeneen élection dana amaat waaye président Abdoulaye Dièye bu ñu ko joxee Thiès dana ko soppi ci taxawaay ci doxalin ci mën-mën ak am-am ba xale yi mën a liggéey jigéen ñi am lu ñu jàpp dëkk bi set dëkk bi leer ndax ceex tilim na salte na lëndëm na boole ci amul sécurité waaw ñun nag wax dëgg yàlla am na ñun ñu dégg ñuy wax daal dañuy félicité euh, ay nit euh, maire sortant dégg nañ muy félicité waaye ñun waxuñu waxi maire sortant ñun waxi maire entrant la ñu wax mooy Abdoulaye Dièye donc tey nag fi tool nii bu fekkee euh, euh, ñooñu yéene wuñu jàmm waa Thiès yéene nañu jàmm bu ñu wóoluwul waa Thiès wóolu nañu ndax Thiès daal doy loon la doomu Abdoulaye Dieye doy loon la coalition citoyenne donc ñu ngi déglu tribunal bi ndax ñun ay nitu yoon lañu ay nitu légaliste lañu ay républicain lañu waaye ñàkkuñu fayda ay citoyen lañu xam nañu suñu droit xam nañu suñu devoir te du ñu bàyyi ñu ñuy nappaaje du ñu bàyyi kenn di foqati suñu victoire loolu xel xalaatu ko donc loolu daal ci gàttal moo taxoon ñu wootee ñu gërëm presse bi gërëm membre directoire bi gërëm militant yi militantes yi ci turu président Abdoulaye Dièye di leen jox rendez bu fii ak ay waxtu nga xamante ne daañu mën a jàll ci proclamation des résultats jërë ngeen jëf